Oh, bul forcer ak soo songale na ko songale na ko dàq fuuf doole. la ilaha illallah. téléspectateur suñu xalaat TV ba léegi rek comme actualité may daal di continuer fii nii ci écrit benn baraag toog ak daanaan li nag toog ak baay Fall bi toog ak ponkal mi nga xamante ne nii moom mooy wàcc la neuf comme dab ba léegi war a def grand combat boobu noonu muy géant yaakaar naa ne nag kii ku ko xamul ku ne dégg nga ko te ku koy xool it doo ko ne jàq ndax da nga koy xool ba mu jeex ndax car macha allah daa waane te daa mën a bëre du ma def lu dul di ko bàyyi mu nuyoog yéen ma daal di koy dalal fi nga xamante ne nii moom mooy suñu xalaat TV ñu daal di continuer suñu waxtaan indi actualité bégee mu daal di neex mbër nuyu naa la bu baax. waaw fay naa la baatu onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ba ma santee yàlla julli si yéen bi sant sama ñaari waajur ah dëkk benn baraag ah Malika di nuyu kuluxum képp kuy bëgg a rek nuyu sama kosi yi nga xam ne daal macha allah ñu teg si yoon bu baax ala jire ah ñoom Erikil ah, di ñaanal sama boy yi war a bëre ñoom jaxaaw ah ba Guèye mu toogoon fii la Bébé Tyson maa ngi ñaanal ñëpp ñoom général bu ma lekk suñu mag ñu ko ñaanal la trois yàlla may ko ndam ah di bëggee kuluxum rek képp kuy bëggee général rek maa ngi toog fi nga toog ne la jàpp loxo waaw di la nuyu bu baax baax. mbokk yi dégg ngeen loolu noonu moom mooy nuyoo bi nuyu na leen yéen ñëpp bëggee waat na leen yéen ñëpp mais nag day waaj lu neex muy lan le neuf comme ni ma ko waxee sànq war a def grand combat Mousnakh production moom ak ki nga xamante ne nii moom mooy Boy Gueye xale bu tàng xale bu saf-sap xale bu sawar xale bu mën a bëre mbari naka ngay waajee le neuf incha allah. waaw waaw waaj moom soo xoolee bu ñu jëlee combat bi yàgg na yaa daanaka ba saison bi di waaj te am ñoo ngi waaj trois mois yaakaar naa soo soo parewul dootoo pare wax dëgg yàlla ñoo ngi waaj nag topp si ginnaaw entraîneur ñoom Alaaji Jële ñoom Herculan gars yi ñoom Bébé Tyson ñëpp rek ñu topp si ginnaaw di teg ay coono am yaakaar boo xamante ne bu ñu jàppee Boy Gueye waaw waxuma la sax daanu dina xoolee leneen barke Serigne Touba boo gee teguñu ko sax suñu bët instant yi ñun waroon nañ dépassé fii làmb mais làmb nu demee la quoi mais comme a wane ko mais naka moom mi nga xamante ne nii champion la ndaanaan la day dugg ci gox yi dugg ci banlieue bi génne ndaanaan yi génne xale yu am safara yi boole leen. waaw Mousnakh di ko sant di ko gërëm ndax yëpp mënoon a ko si bañ a fekk ndax suñu morom la Mousnakh du mag suñu morom la wax dëgg yàlla te duñu gën ko rek comme ni ma koy waxee rek dinañ la fay ba wis la quoi li ñuy fay dinañ la fay ba wis la incha allah te am nañ si wax di wax fi nga teg sa tànk noonu la moo ko neexoon du ko def mais lépp lu mu wax ak ñun respecté bi mooy sa premier grand combat. waaw bi mooy sama premier combat bëri naa spécial bi mooy sama premier combat grand yaakaar naa tamit ci wàllum entraînement pare nga. ci wàllum entraînement noppi nga naka nga doon defee say entraînement ak maintien waa waaw comme ni ñu entraîné rek suñu xëyee dem matinaalu dem saal bu ngoonee ñu dem dund bu ñëwee ngoon ñëw fi contact comme trois séances mais saa comme jege si na ba pare deux séances rek la ñu demee takk ngoon ñëw contact yaa ma gën a xam instant yi moom xam nga loo amul doole ba heure bi mënatoo ko am doole instant yi moom day nangu si dara dañuy wax dëgg yàlla instant moom pare nañ fi bu làmb ji newoon suba suba wallaahi pare nañ pour bëre waaw premier grand combat ñàkk ko yaakaar naa ne du yoon premier grand combat ñàkk ko erreur la ba tax na yaa ngi jug di dugg ci biir dëkk bi wala dëkk dëkkaan yi pour problème mystique waaw ñun nag yàlla dimbali ñu lépp lu ñu war a dox rek wax dëgg yàlla gars yi ñoo ngi si dox Babacar Ndiaye Alsane Ndiaye ah, lenset kenn du ñoom man lu bari sax ñoom ñooy dox yu bari man xëy na entraînement rek lañ masa si côté boobu maa leen masaw bu baax ndax fu ne lu ñuy dugg lépp pour rien ndam rek incha allah mhm. côté boobu moom wax dëgg yàlla noppalu naa man daal lu sama yoon mooy entraîné ñëw pare jour ba ma nekk en bonne santé ñëw du jàpp Boy Gueye du ma ko daan ko incha allah mais Boy Gueye bi ma ko gisee barki Dembo Ndiaye damaa daje ak moom ni ko mbër attention am nga combat de sa waay ji nga am géant daanaan la mu ne moom moo am combat ma ne ko waaw lan moo tax nga ne géant moo am combat du xees ndax mbër yi fi xeesoon yëpp daw na génn làmb ji. waaw moom loolu la yaakaar ne gisul Doudou Sané Doudou Sané dafa xeesoon dafa boo koy xool dafa xeereel. waaw ñuulut xeesul. waaw ñun noonu la demee dem booy wax lu ko neex may jaay si làmb ñuulaay a ma ëpp fit booy gay soo seetaan samay combat Boy Gueye adversaire yi ma bëreel ñoo ko Boy Gueye ñu doon bëreel ñoo kenn xamu leen ay feeraay Boy Gueye ay làmb démb la yor ñu ko doon reporté sax gaañ ne dafa tardé si làmb doo dégg Boy Gueye làmb démb lay bëre barki Serigne Touba Mbaye lu muy bëre dafa xewi te incha allah moon ko ne Boy Gueye boo bëggee daan nii ngay def nii ak nii ak barki sëñ Ba dama koy corriger de pare moo sax pour daanu lu leer laa la mafia bi dañoo soxla combat bi pare moo sax pour ñàkk ko barki alxuraanu karim dinaa la duma dinaa la daanu lu leer loo lu leer laa mu lu mu am baax na xam nga làmb pare da minutes 15 minutes 20 minutes 30 minutes lépp bu mënee dékku moom mën na dem moom 5 minutes ma jaxase ko mu jeex. waaw lépp bëgg naa xaa duma ba pare nag cooko daan na quoi ndax xam nga rek daa si lu ma jógee te lu ma bëgg a wane quoi dama bëgg a wane ne bi fii la dugg waaw moo tax xam nga rek dama bëgg xeex xeex bu doy fu ma kupp la ma waxoon nee na ma le ma xeex dama koy bàyyi xeex bi mu ñëw ma nax ko daan ko ma ko jiitoo ci man dépassé naa fu ñu may naxee salaam loo xam ne dépassé naa ko si làmb quoi ñu may nax wala naa lu ne lu leer laa la wax munoo ma nax si làmb de di nga bëre di xeex lu leer laalo boo tëddee sax xam ne yow mi am nga combat asamaa yow mi la jële yow mi di mag bëre bëre démb man xamaa man mi di bëre bëre tey maa a soxla combat bi fuuf lu mu la jëlalee benn jëlal na ma ko fukk lu leer laa la wax pare ma pour ñàkk combat bi de parce maanaam mobilisation si sa première premier grand combat waaw mobilisation bi macha allah sama waa koñ boobu ba tamit maa leen sant bu baax di leen gërëm na amaana ñoo ngi daj ay coono si man dañuy dagg seen xëy ñëw di dajalee xaalis dugg si kër yi di ket lu ne rien que pour jënd bolog yi rek affaire yooyu noonu gars maa leen woowaat bu baax a baax di leen sant di leen gërëm wax booba tey tamit maire Aliou Sall maa ngi koy remercier bu baax a baax keroog ba mu na si billet bu baax a ngi sant di ko gërëm ah di sant ñëpp rek sama koñ waaw gars yi ma leen wax comme ñoom njool mi maa lay wax nga jëndaat billet bu baax a baax booy ma jëndal billet rek booy dem barki yàlla maire maa ngi koy woo Pape Diouf boobu ba léegi maa ngi lay xaar boobu ba léegi ñëw grand gis naa gis naa jàppale bi maa lay sant bu baax di la di gërëm ah di woowaat ñëpp rek ñoom laay faal gaa yëpp maa leen waa ñu ñëw jàpp si béy bu baax a baax a baax bu ñu jàppee si béy ma gis stade bi taaru rek wallaahi booy bi du ma taxaw ak moom incha allah. Mhm. mais Djiné damaa ñëw fekk la fi nga xamante ne nii mooy écurie benn baraak nga nekk say naataangoo nekk ak say morom nga téye kàddu bi nag téye wax ji ba loo wax mu neex naka nga gisee li nga xamante ne nii moom la Géant wax Boy Gueye. salaamaaleykum man nuyoo ñu fi nekk ñëpp waaw Géant li mu wax ne lu dëgg lu leer ba ci Serigne Saliou Jean lu muy lu mu war a si combat bii nii liggéey na ko te def na lu si war bu jour combat bi booy ga damaa bëgg nga taxaw bu baax dëggal sa bopp. waa autorité yëmbal maa leen di ñaan bu baax a baax nga ñëw jàppale ñu si ñaari mbëri la neuf waaw loolu dong lañ manqué si combat bi loolu kase boo leen ñëwee ngeen jàppale ñu si luñ bëgg di ngeen gis lu ngeen bëgg la neuf booy gay loo loo yaakaar. ak loo xalaat ak lu la sama mbokk yabal bu jël combat bi na nga taxaw dëggal sa bopp. boo mënee dékku ay coup coup géant nu mu mel ak nu mu toll boo ko mënee dékku dëggal sa bopp nga dëgg dëggal sa bopp nga jëm ka dékku. nee na moo gën a diis loxo géant wax na ma loolu. waaw géant xanaa déggoo géant xanaa bañ ne ko dañaa ne géant. Ah, géant eseg naa géant yëmbal géant Malika Kër Massar géant de la ren doo fa dara nag yow nga taw xaar mm-hmm. la fa fekk yaa fa am. mais avant Géant avant Géant Tyson junior moom mooy génn Tyson bébé Tyson. bébé Tyson moom mooy borom tiir bi bu dee da ngaa bëgg sa mboroxee tiir. kan dimbale bu dee dimbale. bu bëggee mbax kii mboroxeem wala suufu kanjam tiir. wala cuwam kii boog di eh, eh, fukki fukki. Eh, dëggoo lu mu la na def nànk dal mu am lu mu tiiree mboroxeem. déggoo lu ma la boo buggee sa sa sa mboroxee tiir bu baax a baax xonk cur da ngay dal nànk dal jàmm dal bu sa mboroxee dina tiir sa suppu dina tiir waaw. mais avant le 9 le 3 la général ko général général waaw. général yaa ko waxal sa bopp général lépp. Hmm. waaw làmba ak ren tout foofu amul lenn lu koy téye. général nga wax général. waaw général de l'arène. mais dof bi la am jëm teeri borom kayaar. non jëm teeri ko ko kuj la kuj la kuj. ko kuj la kuj. Mhm. waaw kuj la. ay kuwam ay kuw général xaju si yow bu la dóoree da ngay jonkon wala nga puub. non billaahi bu ko dóoree day puub. na laaj taay seen gingi neew. am na benn laaw bu ko romb. Hmm. loolu moo ko arrière mu jéem géew bi. Tyson ki ngi neew am na benn coup général bu ko romb. non daanu sax daa doo jéem ndax xam ne la ko fa doo xaar la ko doon fekk moo tax da ko fa xaar mais lu ma munti wax de Boy Gueye dëggal sa bopp say mbokk nañ laa yaakaar lu ngay woote di wax boobu ba léegi na ko ñëw wane jour combat ba waaw. li nga xamante ne nii jinne wax na ko. waaw ñi dañoo xër la ñi xam nañ ndax boobu ba léegi ñooy àndandoo di ñooy ànd si lépp. ba dëgg yàlla xam nañu liggéey xam nañ coono yu ñu des moo tax xam rek ñoom gëm-gëm la ñuy waxee quoi xër mm-hmm. waaw ñoo ngi ñaan rek yàlla suñ borom la neuf yàlla ànd ak ñoo incha allah mm-hmm. def lu ñu war a ñu ngi tàllal suñu loxo di ñaan yàlla yàlla may ñoom donte nag lée ndimbal la si fekk loxo yi entraîné nañ def box nañ ko xool suñ tuñu yëpp yaaxu na ndax box ah ak leneen ak leneen loo xam ne wàññi nañ ko bu baax a baax bu ñëwee moom dañ tuus tuus bu neex dañ bëri bëri bu jaar dañ bëri daal di woo nag ah, boo jaxaa daa war a open press suba di si woo ñëpp waa ah. waaw di ñaanal général boo jaxaawa dim Bébé Tyson maa ngi koy ñaanal dama ah. waaw di bëggee suñ ko si tamit kenn du ñoom ndax ñoom booba léegi ay borom kër lañ mais dañuy bàyyi seen kër te seen kër ñoo topp suñ ginnaaw dañuy teg si yoon wax dëgg yàlla dafay fay ñu leen dara ñoo leen sant bu baax di leen gërëma ah. di bëggee kulufum rek képp kuy bëggee Géant maa ngi nuyu bu baax di woo waa askan bu baax di leen fàttali le neuf sama le neuf la incha allah mm-hmm. ayca mu ngi noonu mbokk yi kii mooy bëree grand combat bi moom ak ki nga xamante ne ni daanaan la di Boy Gueye comme ni ma ko waxee ren loolu la neuf lay doon na ko xaar arène nationale gannaaw bu bébé Tyson bëree ba pare moom mooy bëree grand combat bi waaye comme ni ma koy baaxoo di waxee comme ni ma koy baaxoo di defee di ñaan rek jàmm yàgg ci réew mi jàmm am Sénégal kullu koo xamante nii yaa ngi suivre suñu xalaat TV wala ngay dund la yàlla defal jàmm suturaal la te bëgg nañ te tamit pare nañ ñi caabi féete ginnaaw féete kanam ñi feebar tëdd ci lalu hôpital yi wala ci kër yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu dellu seeni activité ñi bëgg te mënuñu ñi mën te demuñu tamit yàlla na leen yàlla suturaal yokku leen loxo dimbali leen ñu dem kullu kuy yeewoo tundub siin maanaam jaxaw siin ba ma bokk fa ma dëkk yàlla na la yàlla defal jàmm nga am wër di sàkkuwaat tamit ñaan yooyu noonu ci yow waaye nag mënumaa fàtte waa Géejawaay surtout tamit waa Alba ñi nga xamante ne nii foofu laa yeewoo te tamit foofu laa bokk soxna matilaam kenn du yow sama yaay booy boobu lu mu defut baaxut yaakaar naa ni boo fi nekkutoon mu ñaaw alu baaba zongoom yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm waaye soxna Maye Gueye mu sëñ Fallou ba léegi tamit damay continuer rek di ko ñaanal naan yàlla na yàlla wëral yàlla na yàlla yàggal te tamit yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla dimbali di sàkkuwaat tamit ñaan ci moom ki ma dénk nag moom mooy soxna maam Fatim Mbacke Juma mu sëñ Fallou Mbacke Balla maa ngi lay sàkkuwaat si yow ay ñaan di la ñaanal yow it yàlla bàyyi la fi ba nga am li nga xamante ne nii moom nga bëgg ba nga am li nga xamante ne nii moom nga namm ci ndongo yi sëñ Fallou yi yàlla na la ko yàlla defal kon nag mbokk yi jërë ngeen jëf lii nañ leen indiloon comme actualité làmb fii nii ci biir benn barak jërë ngeen jëf